Finalement, vous avez réussi Waouh Magisal Dictateur Magisal Dictateur Magisal Dictateur Magisal Dictateur Magisal Dictateur waaw Guy Marius Sagna moom ngeen di gis noonu ñu koy interpellé fii dugal ko ci grille palais de la république yi Macky Sall mooy noonu waaw nee na dictateur am na beneen manifestation manifestant aussi bu nekk nii ñu koy jàpp nee nañ courant bi dafa ngeen koy suivre ci Bour TV gis ngeen ils ont réussi à semer la police doxee place de l'indépendance ba fii ci palais de la république garde rouge yi ñoo mujjee ñëw jël leen voyez, voyez aujourd'hui, euh, voyez, voyez ce qui est en train de, se passer ici devant les grilles euh, du, palais présidentiel. Euh, c'est Guy et camarades qui aujourd'hui disent à l'augmentation.